tout de suite ak euh, euh Bijou pour euh, parler de la mode de yi nga xam ne actuellement ñooy euh, yëngal un peu tapis rouge yeeg yenn ci ay événements et souvent on traite d'extravagants ñi nga xamante ni ñoom la ñoo leen di créel seen ay mode la preuve boo solul woon veste bi sama xol jeex parce que li nga sol yëpp li ci biir yëpp ngi feeñ yow damay ragal balaa yeewu leen bee jeex ngelaw dugg la <laughs> na ma mënee laa seen nii. lu leer laa la wax. <laughs> dara feeñu fi. dara feeñu man gis naa lépp mais li nga sol nii j'ai vu ça ci cérémonie yu bëri fan yi parce que dafa nekk tendance actuellement. ci tapis rouge yu bëri mais euh, tey comme li ma dul def souvent du ma wax ci mode góor yi alors que góor yi tamit comme ni ma koy waxee tout le temps c'est des fashion victimes dañuy solu dañuy def lépp ci euh, tapis rouge yu euh, quatre vingt quatre vingt septième cérémonie Oscar la ñuy wax. Euh, lan moo gënoon des vacances kada déedéet Oscar yi ñuy ah, joxe Oscar tubaab bi waaw ah, mooy prix yi ñuy joxe <laughs> Oscar des vacances la <laughs> Oscar des vacances vacances yi la ci kanam lay ñëw alors ça c'est chez les hommes chez les hommes Nos Papillons moo génn Pape Cheikh euh, Nos Papillons très chic mhm. tout le temps góor bu ko solee dafay am benn classe bu muy àndal mhm. donc euh, am na style classique bu ñu koy par exemple Nos Papillons bu noir ci chemise bu weex mhm. même si Bradley Cooper bi ñuy gis en photo daf ci yokk benn gilet ci biir pour donner bi mu solu am nañ même euh, même même style bi aussi Euh, nëppap toujours euh, chemise euh, chemise blanche nœud papillon bu noir mais ak veste croisée yi ñu doon waxtaan yële passé voilà ah pour vous dire que c'est très tendance actuellement mm-hmm. continuer toujours nëppap mais cette fois-ci ak veste boo xam ne tissu bi boo ko gisee mun nañ dellu tuuti Pape Samba tu as l'impression que tissu jigéen la benn genre dentelle la lay niroo delluwaatal encore un peu non non bi ci topp voilà genre dentelle lay niroo je ne sais pas ba xam yéen chez vous yéen a ngi koy gis mais comme mix entre dentelle ak jupir lay niroo alors que def nañ ko veste góor boole ko na papillon c'était très classe. Eddie Murphy moom moo ñëw jël sol na papillon toujours sur une chemise blanche mais cette fois-ci ak veste bu weex. d'accord euh, blanc cassé la ko boole ça fait un peu serveur mais comme blanc cassé la ko def. Mhm. trésor pas trop parce que tout le temps parfois da ngay sol seen papillon ñu naan le serveur bi ngay ndirool alors que am na noo koy solee euh, du ndiroog moom mun nañ continuer toujours ci euh, nœud papillon mais cette fois-ci du ton sur ton le euh, Kevin Hart def mais boole ko toujours ak benn veste bu weex boo xamante ne day am tuuti rappel ci ci noir bi mu def. ci biir c'est vrai je me rappelle soirée de gala bi ñu mujjee def King Fat Palace j'arrive euh, souvent dañ koy jaawale mais garçon itam am nañ seen. daanaka wax ko dëgg yàlla. daf koy xaw a niroon objectivement vraiment moom nga <laughs> niroon. waaw dëgg la de ndeysaan te yàlla. yàlla baax na bu non niroo wuy ma te classe. yàlla baax comme d'habitude léegi mun nañ continuer toujours ci nœud papillon bi parce que tout le temps gi gis noir blanc. noir sur du blanc mais mun ngeen ko boole ak benn touche de couleur. code code standard standard noir noir et blanc la nit ñi di def d'habitude mais mun ngeen ci dolli benn touche de couleur comme Ansel ni mu ko defee nii nii euh, nœud papillon bu noir la sol mais veste bu bleu la ci teg. Ah. ba pare jiital chemise bu weex. dafa am tuuti tuuti rappel Pape Samba mun nga avancer waat tuuti. photo bi ci topp la. Mm. voilà donc am tuuti rappel noir bi pour mu xëcc ci euh, nœud papillon bi ak dal yi tamit c'est c'est magnifique. Mhm. Euh, mun nañ am toujours euh, nœud papillon beneen couleur bu dul noir par exemple gris. boole kook ay benn veste bu gris chemise blanche chemise blanche moom dafa mel ni góor yi mooy seen standard parce que tout le temps lu ñuy sol ñu ngi koy jiital ci biir am nañ beneen couleur aussi muy rouge boo xam ne dafa génn bu baax. Mhm. li boo ko defee cérémonie. accélère la cadence mun nga accélérer la cadence yi au niveau des photos on accélère bii bi ci topp ci <laughs> voilà on voilà donc euh, euh, commande par exemple photo bi ñu Pape Samba wan moom daf ko sol ton sur ton sur du blanc mais ak veste velours. ah d'accord xam nga velours ak seddaay bi actuellement dafay xel xew ça te protège bien. Mhm. et ça passe bien benn euh, style lu góor bu ñuy mujjee. mun nga wàccaat Pape Samba. dawal gaaw accéléré ko waaw voilà. Mhm. Will I am avec son mhm. style singulier moom bu nit ñu ñëwee génn fële ci ne papillon ku ci nekk si sol. et c'est un style ici au Sénégal j'ai vu Sidi Samb faire ça c'est c'est très original et man li décembre j'ai vu le je l'ai vu faire ça. man kii daf may jox africain ci solo mi. la dernière fois je l'ai vu porter un peu le même style. veste avec un truc long à l'intérieur si, si. genre photo bu muy wane nañ voilà je pense que c'est ça. Hein, ah, je pense que c'est ça c'était très mm. donc Will I Am. parfois tamit faut savoir sortir du lot. bu ñëpp ñëwee def benn affaire yow nga génn feneen parce que style bi moom kese moo ko amal très décalé. et chez les filles chez les femmes plutôt y chez les femmes robe bi nga bi nga may siiwal nii ci suba ba léegi naan ci biir lay koy feeñ dara feeñul pas cher pourquoi. Euh, baa ñu toog rek. non montrez veste montrez enlève veste et montre-nous un peu. on enlève veste rek un mais on sort pas du. voilà Vous pouvez filmer Kia un peu. <laughs> Mais non, a mis la robe bustier. voilà donc yii la ñu xewal quoi. bustier robe voilà parce que pas cher. Euh, j'ai dañ jël 200 tenues par exemple ne ñoo gën a rafet ci. Euh, Oscar yi. ci deux 200 yi presque 50 tenues ay bustier la woon. donc euh, bustier pour vous dire que c'est robe boo xam ne la dafa sexy ba pare. en même temps chic. Voilà. mais il faut nga xam noo koy choisir. Mm, mm. bustier par exemple bu fekkee comme euh, ki ñuy gis ci écran bi da nga am. voilà mën nga solaat veste bi waa mm, comme télé bi ñoom ñëpp ay ibaadu lañu. te ñoo dàq sol yu sexy classe madame Sarr Gueye. madame Sarr Gueye leer laa la wax. Ah, ay dooni la ñuy sol waaye ku génn ci télé bi ñu ne la sol nag. ba bàyyi ma sa mm-hmm. donc Pape Cheikh bu fekkee da am forme H comme ki ñuy gis ci écran bi nga xamante ne sa presque sa yëpp a tolloo. Mm-hmm. da ngay jël robe boo xamante ne day dessiner vraiment sa silhouette. Mm-hmm. mais nga joxe tuuti volume au niveau de la taille soit par ñaw bi comme nii wala par tissu bi. comme ça mu gën la mettre en valeur am nañ beneen photo Pape Samba bu fekkee mun nga accélérer voilà comme par exemple Chloé Kardashian moom dafa am biir elle est pulpeuse moom lu mu def mooy. Alpi bàyyil Kia donc stylo Kia dafa dafa dessiner taayam bu baax ak benn ceinture génnee décolleté bi <laughs> na yéen ñaar doo leen dem génnee décolleté bi ba pare mettre en valeur ay rondeur am parce que tissu bi mu jël dafa épais donc du génnee cellulite du génnee dara. waaw lu xew. lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew robe moo xew am nañu beneen robe Pape Samba. elle est belle aussi celle-là mais ñi par exemple bu fekkee da nga am poitrine bu ndaw wala nga am mooy ñi nga xam ne Sénégal dañ naan leen da ngeen mais robe dafa mel ni moom la Fatou Waré soloon keroog ci soirée lancement café avec Fatou Waré ba som train bee gën a gudd ndax man sax damaa jaxasoo woon ci train bi benn instant di ko jéem yëkkati comme da bu Fatou Waré <laughs> sa poitrine gën a génn par exemple amoo forme bu rafet ci suuf mun nga ko sol ci dafay serré mettre en valeur sa poitrine. Mhm. ci suuf mu évasé kenn du la xamal dara. am na ñu beneen robe aussi Pape Samba ah. sa robe yi mu ngi bëgg a bëri de. mu ngi bëgg a bëri waaw xaaral ma accéléré lii mooy ñu nekk en forme yi ñi nga xam ne dañoo ñëw rek tàlli. comme Alfie. <laughs> voilà robe albi. <laughs> comme yow. <laughs> tout va bien donc genre genre forme yi soo ko amee mun nga sol robe boo xam dafa xaw a évadé tuuti ci suuf. sa taille nga mettre ko en valeur ak benn nœud wala benn ceinture. comme ça daf lay dessiner benn genre forme boo xamante ne. à la base amoo ko woon. ñu eggali wala. 39 fooy wax dëgg yàlla sa bi yëpp rafet bi rek nga waaw waaw léegi mun ngeen wone robe yi en accéléré dire juste que soo koy sol il faut bu fekkee am ngeen poitrine bu généreuse mun ngeen bañ a sol soutif. et puis éviter di wane languette kii. exactement parce que ça day kase li nga. style bi nga bëggoon am yëpp. merci. waa kay jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Aïda kontaan nañu 9h39 merci beaucoup bien waa lu xew 9h39 <laughs> mooy doog a jot est-ce qu'on peut nous montrer en même temps. Euh,